in tey li tax ñu dajale presse bi tey pour ñu mën a wax ak ñoom lenn la loo xam ne phénomène bi à chaque fois day répété wu depuis mille neuf cent et quelque ba léegi mënuñ concevoir suñuy papa yi suñuy maam yi sax ba ñu ba ci ñun ñii suñuy grand frères yi ba ci ñun ñii ñuy revendiquer même la même sos muy lan retard des bourses ci état mel na Sénégal pour man war nañ mën a dépasser foo xam étape boo xam ne dañuy dem ba nga xam ne étudiants yi dañuy dagg seen jàng étudiants yi dañuy décréter grève ngir lan parce que jotuñu seen xaalis xaalis boo xam ne ñoo ko moom xaalis boo xam ne ñoo ko moom depuis mois d' octobre jusqu'au mois de mars lañu waroon jot suñu bourse six mois ñu ngi aujourd'hui nous sommes le 17 avril le 18 avril du mois ba léegi jotaguñ suñuy bourse et c'est anormal raison pour laquelle ñu dajale presse bi pour mën a wax ci ak ñoom li des nag li may wax mooy bourse yi am na élèves yu nekk ci logement yi fii ci biir école bi ci bourse yi lañ yaakaar pour lan pour mën a fay logement yi bu fekkee juruñ bourse yi naka la ñuy def pour mën a fay seen logement dañuy leb wala dañuy sàcc question la yu ñuy posé donc bourse yi la ñuy revendiquer nuñ mën a jotee ak ci nu mu gën a mën a gaawee noonu la ñuy gën a arrangé leneen li ci des mooy am na étudiants yoo xam ne ñu ngi en deuxième année ren dañuy def seen mémoire te pour mémoire bi dafa am ay projets yoo xam ne dañu ko war a réaliser projet yooyu duñ ñëw nii rek euh, fi seen baaraam mu am xaalis moo koy def pour jënd matériel yi pour jënd lépp lu jëm ci pour euh, seen projet yi mucc ayib xaalis moo koy def te ñenn ñi ci bourse yi lañ ko yaakaar bu fekkee jëriñ bourse yi nan la ñuy def dañ koy leb wala dañ koy sàcc question la aussi yu ñuy posé waat la même chose beneen bi ñuy posé mooy quoi pas ñu def ko trois mois au lieu de 6 mois bu fekkee ñun ñi nga xam ne dañoo nekk dañoo jógee hors de Dakar ñëw fii nii déjà dañuy luye ci nga nar a fay mais aussi heure boo ñëw école que nga juge ñii di jóge jam ñaajo ñi di jóge Tëngéej ñi di jóge Géejawaay nan la ñuy def dañuy paas door a deux ñi 200 ñi 500 aller retour nga nar ko jàppee chaque jour chaque jour donc pourquoi pas ñu wàññi ko def ko 3 mois au lieu de 6 mois de bourse leneen li ñuy des li ñuy ñaan euh, ministre de la formation professionnelle à savoir Moustapha Njekk Sare moom mooy porte porte parole gouvernement bi te chaque conseil des moom mooy rédiger affaire yi ni ko président waxee sànq. ba léegi gisaguñ lenn ci communiqué euh, conseil des ministres yi que président bi wax na tel ministre de la formation wax na tel ministre de la formation te pourtant c'est leur pilier fondamental de leur projet dont ils incarnent projet bi ñuy incarne ñoom l'employabilité des jeunes ci la bokk mais aussi formation professionnelle ci la bokk donc loolu moo taxoon tey ñu invité presse bi pour war a wax wax ak ñoom déjà décrété nañ 48 heures de grève yoo xam ne def nañ ko lundi mardi mercredi ñu def suñu ñu ngi toog di déglu parce que état de paiement yi ñuy wax pour man wurul nekk trésor pour ñu koy dugal ci tiroir yi wala ñu koy xool nii rek c'est pour être traité dañ ko war a xool jox ñu suñuy bourse ndax li ñuy laaj ñaanuñu ko une fois de plus ñun ñoo ko moom six mois de bourse tey saa ñu ngi ci septième mois bi donc c'est anormal bourse yi waroon ko jox depuis le début mars wala mi mars instant yi ñu ngi 18 avril loolu moo taxoon ñu woo leen